man la président association des électriciens de la région de Fatick euh, bon dëkk Kaarang nekk représentant au niveau national te nag ñu ñëwoon euh, amoon benn maintenance bi nga xamante ne ni moom lañ doon def fii ci hôpital régional bu Fatick euh, comme quoi que ñu dëkk ci région bi dëkk ci réew mi aussi di gis li nga xamante ne ni dina am ci hôpital yi ay yàqu-yàqu ak ay tàkk-tàkk chaque année ñu dëgg si benn wala ñaar wala ñett yoo xamante nii Euh, day indi ay jafe-jafe yoo xam ne ba nga xamante ne ay doomu aadama dinañ ciy ñàkk ay bakkan surtout bu ren bi nag mu marqué ñu trop ñu gis ne onze bébé décédé na te chaque jour fu mu amee dañ ci wax wàll côté électricité te fekk yàlla defoon ñun ñu organiser wu ba nga xamante ne au niveau chambre de métier bu région de Fatick suñu président Issa Dieye bon jàppale woon ñu si ay organisation année yi passé yëpp ñu nekk di organiser wu di liggéey ci affaire yu bëri di def ay formation suñu biir léegi nag ñu amoon initiative ne bon lan moo tax ñun mënuñoo wàcc ci hôpitaux yi yi nga xam ne moom moo nekk ay jafe-jafe ba ay nit di ci ñàkk seeni bakkan surtout ñi nga xam ne ay xale leen ñu dugal ci suñu loxo. initiative la ñu jël ko ñun association des électriciens de la région de Fatick. moment bi ñuy wax ak yéen nii vraiment ñu ngi ci terrain bi mu métti lool waaye ñu ngi koy gérer parce que xam nañ ne non seulement ay doomi Fatick lañ mais fii mooy dëkk président Macky Sall. lu waaye di def ci exemple bu rafet dama jàpp ne war nañ koo mën a commencer fii di dëkkam moom it mu doon njiitu réew mi bëgg dëkk bi ñuy interpeller nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko fi nekkal ñu def ci ay participation yu wóor parce que lii c'est une première te dañoo bëgg mu pérenne quoi mu doon loo xamante ne à tout moment dañ koy bëgg di def waaw mënoo wax nag te jiitaloo euh, son excellence nu mu tuddati monsieur le ministre mataar Ba moom mi meeru dëkk bi ñu ngi ko ci woo di ko wax ne même bu déggee suñu lii bu ñu wooyee à travers man wala Kobar wala le président de l'association dinañ ñëw rencontrer ko lépp mun lu mu ci mën a def mu def ko ñu jàppale ci yeneen districts yi parce que Fatick du hôpital régional rek moo fi nekk am na ay districts am na ay cases de santé am na ay postes de santé ñu dem fa def fa lu mel nii pour éviter jéye yooyu sama euh, nu mu tudd doyen bi doon wax léegi du ma ci ñëwaat bu ma tuddee Matar ba nag dinaa tudd le coordonnateur de la Maison de l'Espoir nga xam ne moom la gaa yi tuddee sapeur pompier dëkk bi mu ngi fiy def lu wóor damaa bëgg mu dugal ci lii loxoom te dina ko def incha allah à travers Biram Fay may samay koor du ma fàtte bon ñooñu ñëpp ñoom Bamba Sarr waaw képp ku déggul sa tour daal nga xamante ne peut-être ni mu demee la waaye kuy fils digne de Fatick te am ndombol tànk rek wala boo amul ndombol tànk te am say moyens yoo xam ne yéene nga ko association bi rek nga jàppale leen bu baax a baax parce que gars nag ay jàmbaar lañ te soxla nañ ay moyens comme ni ko sama doyen bi waxee bu ñu amoon oto boo xamante ne bu ñuy déplacé wu sax ñu def ci bagage yeeg échelle yooyu vraiment dinañu arranger parce que lii defuñ ko pour Fatick rek mais on compte le faire pour tout le Sénégal. voilà donc association régionale bu région bu Fatick tey dañu ñëwoon fii vraiment ñu nekk jàmbaar gis ne daal euh, war nañ mën a def benn acte sociale jëmale ko ci hôpital régional bu Fatick. ginnaaw bi ñu fi ñëwee jamono yee ci ginnaaw visité woon hôpital régional bi gis ne daal installation bi. nañ ko installé ak nañu bëgg mu melee wuute na ñu jëloon engagement ne dañuy def euh, maintenance bi gratuitement def ko ci seen coobare bopp ñuy tamit chambre de métier ñu encadré leen accompagner leen mu nekk nag mbir boo xamante ne vraiment mbir mu am solo la ndax i tamit gisoon nañ jamono yee passé benn jéeyi bu amoon fële ci département de Tivaouane commune de Tivaouane ñu gisoon ne daal mu nekkoon jéeyi bu xawoon na métti bu métti woon lool sax ñu ne woon nag loolu pour ñu éviter ko foog ñu xoolaat suñu bâtiment yi seet naka la ñuy def daal bay nga xamante installation bi dina jaar yoon. donc looloo taxoon ji association bi ci ndigalu seeni président ñëw collaborer ak la chambre de métier ñu jàpp leen ba ñu def maintenance gratuite ci hôpital régional bi. te vraiment gis nañ ne daal suñ ci paree incha allahu rabi amaana mun nañ moytu jëy yi nga xamante ne amoon na teewoon. waaw jamono jii nag ñi ko njëkk a initié association régionale bu Fatick la mais lu baax moom ñëpp a ko bëgg gis naa ne tey ji su yàlla defee ñu partagé ko dinañ gis ne daal xëy na yeneen association yi dinañ def yu mel noonu mais lii tamit dafay baax état di Sénégal am confiance ci ay artisans yam ah, te xam ne am na yenn yoo xamante ne dañu war di fexe yombal mbir yi ba artisans yi di am accès ci marché yi. ndax ñoom ñoo koy liggéey léeg-léeg entrepreneur dañuy dañuy gagné benn marché soo gagné benn marché yow yaay defandoo lépp léeg-léeg Euh, artisan yi ngay jël duñu qualifié ndax fay main d'œuvre artisan bi nga xamante ne qualifié na nekkul loo xamante ne lu yomb la ba tax dañuy préféré jël affaire yi di ko sous-traité ñi nga xamante ne dañu ay am amuñ expertise bu yaatu ci wàllum électrification loolu mooy waral léeg-léeg ngay gis yenn jëyi kon tey ji état war na mun a seet yan mécanisme la fay lay mettre en place ba yombal électricien yi yombal maçon yi ba nga xamante ne dañu mën a am accès ci marché public yi ndax ñoom suñ ko defalee seen bopp am naa yaakaar ne lépp dina jaar yoon ndax tey jii jéyee bi am Tivaouane su fekkonte ne ka ko liggéey commune de Tivaouane la dëkk dina am kersa lool lool lool kon dafay baax ñi nga xamante ne mooy expertise locale yi ñu xam ne ñoom suñuy liggéey su boppaa seen bopp la ñuy liggéeyal dafay baax ñuy seet naka lañ leen koy yombalee ba ñuy mën di jot ci marché yi. voilà li ñu def nii tey volontariat la daal ndax ñoom ñoo jël seeni xam-xam. seen seeni main d'œuvre lañ jël may ko gratuitement hôpital régional bi hôpital régional bi nag ci wàllum matière première bi li ñuy soxla ci câble yi li ñuy soxla ci contact yi hôpital bi def na ci participation waaw ñun chambre de métiers yi tamit vraiment accompagné nañ leen jamono yee paase rek ñeen seen assemblée générale ñun ñoo ko financé woon lii tamit ñun nañ ci jàpp mais volontariat la fayeeku wuñ ci benn dërëm dañ ko def gratuitement mais loolu tamit ñoom ñu def dañuy wan état wan ko ne ñoom lépp lu ñu soxla ci expertise jëmale ci wàllum artisanat ñoom mën nañ ko kon en retour tey xam naa ne ëllëg su fekkee hôpital régional am na beneen marché bu mu war a joxe balaa moo xalaat keneen dina njëkk a xalaat tey ji artisan yi nga xamante ne ñoo dëkk ci région bu Fatick ba pare